bi nga fi teewee lan moo doon sa première réaction si loolu. waaw d' abord li ñu njëkk a def mooy sant suñu borom parce que euh, bi ñu mayee ñu am wér ba mën a teewee lu mel nii donc loolu dañuy sant suñu borom bu baax a baax a baax donc loolu moom loolu laa loolu laa war a njëkk wax sant suñu borom ba pare waaw macha allah. alors euh, nu teew fi euh, gis nga kàddu yi nga xam ne yëkkati na teg tegleel ko kii di euh, njiitum réew mi mu respecté lii di constitution bu Sénégal waaye aussi booloo bi nga xam ni candidat yi amoon nañ ko ñoom ñëpp nu ñëw répondre massivement ci li nga xam ne nag moom moo di marche bi loolu tey ji lan nga ko mën a jàngatee waaw xam nga lii dafa nekk loo xamante ne lu ñu yàgg xaar la tey ji man pour man lii c'est un non événement parce que tey ji ñu ne ñu ne automatiquement dafa am marche ñëpp di ko rafet lu mu nekk lu big time warul nekk lu big time ça doit être quelque chose boo xam c'est normal parce que bu ñu nee match c'est un droit constitutionnel par rapport a un sujet bien déterminé donc warul nekk sax warul nekk sax événement waaye nag comme Sénégal fii ci at yi ñu mujj nii ñu génn ni xawoon na takk tembe ci lu bari c'est normal mu nekk événement pour sénégalais yi waaye nag dafa nekk loo xam ñoo ko moom te dañ ko war a jël sans problème voilà alors tey ji lan nga yaakaar moom mooy justifier à chaque fois bu nu wàccee pour amal li nga xam ne nag moo di marche ñu leen koy bañal. pardon répété lan nga yaakaar mooy justifier à chaque fois bu nu bëggee amal dox ñax su leen koy bañal. waaw loolu nag moom je pense que la personne bi nga xamante ne moom mooy bañ moo doon gën a rafet pour moom mu tontu ci man ci sama gis-gis sama analyse boobu mooy xëy na peut-être dañu ragal rek parce que rassemblement la ñuy bañ waaye rassemblement bi ngay bañ nit yaa ngi koy seen biir xol te tey wane na ko. xëy na sax organisation bi amaana am na lu ñu ko doon defaraatee tuuti rek ñu pousse tuuti temps bi parce que samedi dafa xaw a métti tuuti parce que citoyen sénégalais ñu bëri dañuy xëy di daan seen doole góorgóorlu yeeg yëpp donc semaine bi dafay lourd lourd si ñoom donc pour ñu yeewu 11h wala 10 pour ñëw si événement yi dafay a métti parce que am na loo xam ne da di war seen kër ba pare balaa ñuy génn damay ñaan rek ñi nga xam ne ñooy organiser suñu responsable bu beneen yoonte ñu xalaat tuuti temps bi ñu wàccee ko tuuti rek et puis naaj bi tamit dafay xaw a saf tuuti gars yi bu ñu ñemewul naaj bi day métti mais li may wax encore une fois mooy est-ce que bu ñu nekk ci république boo xamante ne république boo xam dafay dem dans la normalité est-ce que tey lu mel nii war nañ ko mën a sax naa dañ koy saraxu pour am ko warul mën a nekk dafa war a nekk loo xam ne si automatique ci kaw loolu nag damay woowaat encore sénégalais yi à une réflexion par rapport à un point bien déterminé naam woote nañ marche bi pour élection élection naam élection baax na mais man dama ne élection bonul de waaye yàkkamti élection it war na mën a indi taxaw seetlu parce que élection dafa may préalable fichier bi nga xamante ne moom la ñu war a demee élection amul kenn ci opposition bi ku ko ci am war nañu mën a am fichier électoral bi am ci une main prise loolu c'est d'abord la première des choses muy benn deuxième chose un ministre de l'intérieur partisan kooku war nañ ko xoolaat war nañu utal kenn koo xamante ne à la limite il est neutre ou bien si société civile la nekk koo xamante ne farul fii wala faru fee wala ilaa kan amul candidat boo xamante ne dafay bokk ci parti am wala di dem ci jongante bi nga xam ne mooy élection présidentielle. kii tamit di Thiendella Fall nga xam ne mooy gérer élection yi tamit war nañu xoolaat taxawaayam parce que gis nañ ay irrégularités yu bari yoo xamante ne am na diggante bi processus bi commencé ak léegi ci kaw loolu it war na indi ñu taxaw seetlu ci est-ce que y a pas une pour pouvoir accélérer l'élection parce que tey jii bu ñu demee élection te amuñu li nga xamante mooy fichier bi d'abord loolu am na lu bëri lu kaddu bu fekkee dafa amee lënt-lënt doo ko mën a kaas bu amee bu amee jafe-jafe doo ko mën a ko mën a saytu te loolu lu base la base yooyu buñ ko buñ ko affranchir rek ñu yàkkamti dem ci élection bu ëllëgee lu mën a am hold-up mën na am leneen mën na am leneen mën na am doo am foo ko jooyee parce que bu boobaa. rëccu day wees. donc da nga yaakaar anam bi am nii bu ñu si demee rek mën na indi li nga xam ne nag moo di élection yoo xam ni transparente. waaw élection transparente leneen encore mais il faut que gars yi gën a communiquer ci sénégalais yi ñu dem jëli seen carte d'identité préfecture yi am na ñu bari ñoo xam ñu seen carte d'identité te normalement loolu am na budget boo xam dañ koo dégager boo xam ne état bi da koo dégager pour loolu mais gisoo fenn ci état bi fu ñu defee communication pour inciter les sénégalais à aller prendre leur boo xoolee bi processus su euh, parrainage bi jotee ba léegi ñu si bëri dañoo teggi seen tànk ci loolu il faut que sénégalais yi dem jëli seeni i dante d'identité il faut que aussi mandataires yi ñu assuré wu que ni dans toutes les localités de ce pays là les mandataires ils sont présents et bureau de vote yëpp ils sont disponibles mais ils sont en fonction ba pare aussi bu ñu nee le 25 mais bu fekkee dafa passé le 25 nan la ñuy def ak yi nga xam ne euh, nu mu tudd spécimen yi nga ne acheminé woon nañ ko ba pare ci à des zones bien définies ñu defaraat ko moo tax ma ne yàkkamti bi. baaxul naam kaas ñu dem ci baax na waaye taxaw seetlu ñu xool nan lañ ciy demee anam yi ñu ciy demee fànn yi ñu ciy demee ak ñan ñoo ciy dem parce que inclusivité dafa am solo libération des détenus politiques yi nga xamante ne libéré nañu fan yi ñu ngi koy saluer waaye dafa war parce que ñoo leen tëj ñoo leen génnee parce que gëm naa ne ku def dara ñu lay woowee terroriste ku def dara ñu lay woowee force spéciale ku def dara ñu lay woowee commando xanaa doo bàyyi ba élection nga xam ne mooy nekk zone période bi gën a sensible ci population nga leen ngay bàyyi ay terroristes ñu doxoon suñu dëkk. waaw lan mooy lan moo lan mooy justifier la libération des détenus politiques dialogue dafa am entre Ousmane Sonko ak président wala lan moo xew exactement. waaw mais xam nga justifié mënoo ko justifier yow mënuma ko justifier man mais dañ koy rafetlu parce que on n'est pas à l'étape de la justification on est à l'étape de ñu xool ñu apprécier parce que Sénégal moo soxla apaisement parce que les Sénégalais sont traumatisés koo ci xool. tàng xol mer tali yeeg yëpp ñëpp da ngay gis dañuy dem benn benn engouement boo xamante ne mënoon na ñàkk parce que jafe-jafe yi am ci dëkk bi métti na dëkk bi dëgër na location yi cher na dund bi cher na donc apaisement boobu Sénégal da ko soxla te tey président Macky Sall doomu Sénégal la élection yi war na jàll mu war a mën a dëkk Sénégal ak njabootam war a mën a doxantu ci biir Sénégal ak njabootam war a mën a jumaa jot mu war a mën a dugg ci jumaa bi dem jul ji ak njabootam te kenn du ko ébranlé war na mën a nekk. voilà mais libération bi nii est-ce que du indi benn gàkk-gàkk si li nga xam nag moo di justice Sénégal ndax tey jii boo jàppee nit toppeeku li nga xam nag moo di acte compromettre à la sécurité publique wala atteinte à la sûreté de l'État genre xeet yu mel noonu ba si ay acte terroriste sax est-ce que tey jii bu ñu xëyee suba rek bàyyi leen loolu du indi benn gàkk-gàkk si justice Sénégal. xam nga am na leen loo xamante ne bàyyi ko xel justice bi fi ñu jëm ak Sénégal bi ñu bëgg a tabax ak le projet PASTEF ak le président Ousmane Sonko mooy séparation du pouvoir xam nga lan lay indi séparation du pouvoir bu amee rek doo mën a influencer doo mën a jaay doole te doo mën a corrompre te tey jii ñett yooyu justice bi am na ci ay feebar yoo xamante ne war nañ ko mën a saytuwaat man du ma ŋàññi justice bi parce que à la fin de la journée ay nit ñoo fa nekk comme man sama ay nawle lañ sama ay kilifa lañ mais nit matul waaye war nañu mën a defaraat suñu toogaay defaraat suñu gis-gis waaye defaraat suñu dëkk te justice mooy base dëkk loolu nag du indi gàkk-gàkk parce que politique politicienne moom fu mu rax jaay doole dina ci am justice dina ci dugal loxoom parce que am na ñu far ak yow am na ñu farul ak man am na ñu ànd ak man am na ñu àndul ak yow malgré c'est la grande muette mais c'est des sénégalais et le devenir de ce pays là am nañ ci part de responsabilité waaye am nañ ci seen choix donc tey jii li war a am mooy ñu xool nu ñu defee séparation de pouvoir pour que le juge puisse juger un dossier avec toute mais avec toute honnêteté mais avec mind lu ñuy wax peace of mind en anglais pour que moom mu mën a xool li mu jàng ak ni mu gisee dossier bi mu jugé ko te yàlla tax mais pas parce que kumba am nday la wala kumba amu nday la wala doomu diw laa wala bokk naa fi wala bokk naa fee loolu moo war a denc ci Sénégal bu ñu ko defee rek Sénégal dina nekk si jàmm te apaisement bi ñu ngi koy saluer di woo Sénégalais yëpp ah ñu dem jëli seen i carte d'identité ñu xool boo bon côté de la chose et que ñu bàyyi di xam ba taal parce que ndox buy taa buy fay safara kenn du ko segg laat balaa ma lay bàyyi nga dem foog nu waxtaan ci li nga xam nag moo décision bi conseil constitutionnel jël annulé décret bi nga xam ne moom la président jël waaye gis nga démb ca présidence génne benn communiqué di fas yéene respecté décision bi jël est-ce que yaakaar nga président Macky Sall ñeen nañ sax nun koy euh, apprécié wee euh, fas yéeneegul organiser élection yi fii ak li nga xam nag mooy le 2 avril euh, ban jàngat mën a indi si loolu wala ban réponse nga ci indi waaw encore une fois rafetluwaat ko mooy li ma la wax sànq ay nit lañu conseil constitutionnel du machine ay nit lañu dañu am xol am xel nit dafay juum buñ ko mënee waxee nuñ ko mën a waxee nit day juum ak juumte bi niveau bu mu mënta egg juumte la rek te loolu ci matadi nit la waaye bu demee ba mu dellu si waat ci base réelle de la justice telle qu'elle est c'est-à-dire l'équité et la balance parce que balance mooy symbole justice dañ koy rafetlu léegi ci li ñu jëm ak li nga xamante ne gouvernement bi décidé nañ ko ni dañuy conformer wu à la règle kooku mooy li waroon a nekk ca début ba ils ont mis les charrues la la charrue avant les bœufs c'est mais bu ñu demee ba ci yoon ñu gis ni bëy dañoo féete ginnaaw ñu bëgg indiwaat bëy ca kanam nañ leen ko nangoo rek xam ne njuumte la rek waaye du tax nag danañu utiliser suñu xel parce que nag ay njombor ak doomu njombor la ñu amal affaire du tere nag dinañ yeew danañ leen seet dinañ leen xool dinañ leen déglu waaye nañ ci am njott bu rafet ndax ay jullit lañ à la base te sa moroom ju da am njott bu rafet bu ñu wootee élection mooy li ma la wax sànq élection bu ñu mën a woote nañ ko woote parce que mooy li yoon mooy yoon parce que sénégalais c'est le droit dinañ ko def waaye nan lañ koy defee kañ lañ koy defee ak fu fuñ koy defee te loolu dafa am préalable te préalable bi mooy li ma la limal sànq le fichier électoral ñu changer ce ministre de l'intérieur Thiendella Fall nous le changer pour la direction des élections et maintenant regarder les bases pour l'élection pour que lépp lu ci lënt-lënt ñu mën koo saytu dindi ko mais créer une inclusivité de tous les candidats yi nga xamante ne bëgg nañu daw ci raw gàddu bii nga xamante ne mooy la magistrature suprême parce que am nañ ci droit ñu dem ci loolu mais ñu demee ci xel pas ak xol élection dafa war a am mais buñ ko yàkkamti ba def loo xamante bu ëllëgee réccu dafay wees. jërëjëf asalaamaaleykum merci beaucoup jërëjëf. ñu la jaajëfal bu euh, baax a baax di euh, jaajëfal aussi euh, Doudou mi nekkoon sànq ba léegi ci liggéey bi Doudou ma bàyyi la nga wéyal. waaw kay yow yéen ñaar yéen a tijjandoo